alhamdulilah sant Diallo. Sous le patronage de son excellence monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, sous la présidence effective du ministre de la Santé et de l'Action sociale, monsieur Abdoulaye Diouf Sarr, et du président du conseil départemental de Koungheul, le ministre Assane Diop lëkkaloo ak ONG américaine bi nga xam ne moom moo di Where Africa monsieur Mayacine Camara ministre secrétaire d'État maire de la ville de Koungheul et l'ensemble des conseillers municipaux ñooy amal ay journée de consultation médicale au centre de santé de la commune les 7 et 8 février 2020 pour une meilleure prise en charge des maladies chroniques euh, dans le département ba noppi nag daal di koy tëj ak une grande soirée de gala le vendredi 7 février au stade municipal à partir de 20 heures recette ou manifestation boobu nag daañu ko jëfandikoo ngir jàppale bépp malade boo xam ni da nga nekk ci région bi ci occasion boobu nag monsieur Mayacine Camara àndandoo ONG américaine bi di We Africa mooy invité képp koo xam ci gox bi ngir nag nga ñëw consulter wu ay spécialistes yu bari dinañ fa nekk àndandoog nag association Bambouk santé ak collectif bu personnel bu santé bu région de Kaffrine yépp ak Kaolack conférence bi ku koy animé nutritionniste bu mag bi nga xam ne moom moo di faatu Faye ba noppi nag daañu fa indi ay médicament ay garab yoo xam ne dañu koy maye ba noppi daañu indi mille lunettes pour képp koo xam ni nekk nga ci ay jafe-jafe ñu taxawu la gunge la kon nag mbokk yi yéen a moom loolu ah Koungheul seen bés yi rëy na te Pape Diouf dina ko wàcce